kenn du ko naasaayal loolu na ngeen ko yeg loolu na ngeen ko def seen bopp loolu na ngeen ko xam ni doo leen ñëw def fi élection sans Pastef loolu munu fi am loolu te du fi am tay te du fi am suba les enjeux sont énormes les enjeux sont énormes renversés trop de blessés graves trop d'emprisonnés te kenn attewuñu mbay mbiram kenn taal lañ sama kër ba léegi jàppuñu nit ñoom la ñu sànni ko këyit ya noonu bu ma wutoon ne leen topp leen dañoo dem ci bureau procureur mën leen këyit ya réer na parce que man la parce que bokkuma ci ñoom ñu ñëw fekk sama baay di nalaw sama nalaw samay tante di nalaw samay frère di nalaw samay sœur di nalaw seeni doom di nalaw ay liir di nalaw ñu asma di nalaw ñu wërale ko pën a taal leen ñu ñëw def seen constat def lépp police criminelle ñëw ñu def lu ñuy def moo wut avocat avocat ba dem di leen wax dossier bi ñu ne ko réer na bureau procureur secrétaire ba ne ko kayit yi réer na noonu laa ci mujjee man est-ce que man dina ma neex ma toog gis leen ngeen di foo parce que damay xam ne taaluñu seen kër fekkuñu seen bàyyi muy nalaw ñu embuscade ko dóor koy pëna enchaîné ko ko ne tàkk leen yéen ñëpp est ma neex ma toog di leen gis ngeen di fooye projet bi wala ngeen koy defee ay naxas ak xandang di ko caaxaanee ku ko defoon sa papa dina la neex yow te maa ci gën a tuuti la feebar ba suñu jonn yàlla de jàpp ñu nit te association bu mag a ko def ni ay ñoom ñoo ko def ak seen i oto association de malfaiteurs duñ ko pën a wër sama kër ba mu daj bopp ba genn sotti essence ci buntu ci buntu fenêtre yi ci biir buntu kër gi taal ko suffoqué suffoqué sama papa suffoqué sama yaay rey ñëpp kon affaire yi du caaxaan jàpp dàmboj ak otom topp ko tiire ko ay balu fetal ay impact de bal ba léegi jàpp ñu picc parce que Dame Mbodj ci ñoom picc ay bal loo xam ne ci tele lañ ko doon gisee dóor ko ay bal plus de sept bal yu impacté di romb bum bëggoon ko def nuñ def maîtriser bëggoon ko noppiloo ndax jekkoon nañ ko bu ñu ko bëggoon ray ray ko dañ ko bëggoon noppiloo fu ne ñuy tiire fa mujjul fenn picc jàppuñu ko ñu rey dee deux mille vingt ñu rey plus de quarante xale yu ndaw de seize ans à trente cinq ans amul benn enquête taal sama kër waajur amul benn enquête jàpp ñu kenn taal oto Cheikh Bara Ndiaye ba mu tàkk jeex tàkk amul benn enquête jàpp ñu kenn dugg këram toroxal ko jàpp yóbbu amul benn enquête mujjul fenn rayati ay nit bii passé plus de trente et quelque mu dem quatre-vingts amul benn enquête rey Fulbert Sambou un militaire amul benn enquête jàpp ñu kenn rey Didier Badji seeyal ko amul benn enquêt jàpp ñu kenn rey François Mancabou rey bu ñaaw ne am nañ vidéo treize amul benn enquête jàpp ñu kenn ba ñu mujjee rey di jàpp di tëj di jàpp di tëj di torturer mais yéen dëkk bi dafa dafa metti dëkk bi dafa metti nit dañ sonn nit yi dañuy tàyyi ci xeex bi dañ tàmm nit yi dañ daj lu ci xeex bii lekkuñu ci naanuñu ci famille yaay di jooy famille yaa ngi yuuxu famille yi tas nañ famille yi jaaxle nañ boobu di ñëwaat sama kër di topp sama grand frère ba mu ba mu génn fa di ko topp matin di ñëw ci station essence bi di laajte taal sama kër continuer di fa ñëwaat di fa ñëw di indi 4 x bu weex boobu noonu di fa ñëw di wër sama grand frère bi di di laajte ba mën a ko génnal foofu bañ ko defee ba suñ jonn yàlla te sama kër nit nekkatu fa bañ fay ñëw di taal ñaataat na barke alxuraan sama kër tas na bu yàgg barke alxuraan kenn nekkatu fa ñu nekk kaw Kaolack mën nañ dem xool trois personnes nekkatul sama kër ku dul paa bi màgget mère bi màgget tante bi ñoo ñoo fa des ñëpp daw nañ ñëpp ñëpp parce que ñu ngi dañoo ñëwaat di topp sama frère yi ñii seey ñii jaar nii ñii kii daw dem Nicaragua ñii ñii jël gaal gi ñii daw kenn desatu sama gaal la kenn kenn kenn desatul sama ka ak nit taxawatu fa ñun li ñuy daj dafa dafa metti tuñu naan lekkatuñu naanatuñu nalawatuñu te mënuñu wax kenn suñuy naqar taal lañ sañ kër tas nañ sañuy njaboot mënuñu wax kenn suñuy mettit mënuñu ne parce que mënuñu ko jooy parce que buñ koy jooy bu ñuy jooy xoos-xoos fekk fa ay góomu deewaale amuñu sax fitu ñëw ne leen est-ce que xam ngeen ni ñii bàyyi ba léegi bàyyi wuñ ma est que xam ngeen ni ñii ba léegi ñu ngi may topp est-ce que xam ngeen ñii ba léegi bàyyi sama njaboot picc nekkatu sama kër ku dul sama papa sama yaay sama ta ay màgget nee naa leen dem leen ngeen rey ñooñu dem leen allez yi ñii ñoo fi des comme reykat ni dam leen rey ñii mu jeex dem leen ñi ñi romb nañ seen seen soixante ans gam dem leen ngeen rey leen benn booy góor nekkatul suñ kër boo yëpp a seey yëpp tasaaroo ñiy jaar gauche ñiy jaar droite ku nekk ku nekk ngi laxatu et vous pensez que ñun dañu nekk ci xeex bi nekk ci nii rek di tamba baaloo ko wëndaalu moo tax du neex ci xol nit yi nekk di même pour naa sax ay foo lañ ci lañ ko boole foo ay caaxaan ay sabotage mel ni ñoo xam ne xamuñu sax les les enjeux di moment wala lu nit di daj wala nit yi seen njaboot yi di tàkk ñi seen njaboot yi di tas ñiy rey seen i waaye fulla fayda booy mag yi gënuñu ci ndey gënuñu ci bàyyi munul yor ab réew di ko defee nu mu ko neexee di xañ nu mu neexee lu ko neexee di ko tere nit di tëj nu ko neex di tortir mais ça va mais trop c'est trop mais trop c'est trop mais des fois du gars yi comprendre sax lu tax ñuy génn di tàkk des fois naqar yi ñu am suñu xol dama xam ne buñ génnee di tàkk dëkk bi day tàkk moo tax de waaye billaay torture mentale bi ni ñuy daj ñun lu ñuy daj ci kaw suuf fii moo tax des fois damay génn di tàkk di def noo xam ne ah ba gars yi naan kii dafa dof ko parce que man lu may daj ñoom dañ ko dajul moo tax ñu ko comprendre li may daj man si sama chair sama fort intérieur dajuñu ko moo tax bu ñu leen di wax duñu sax comprendre dañ naan kii tàkk na wala kii naan fekk mu ngay génn di saaga parce que li ngay daj la lu ñuy daj la ñoo xam ne bokkuñoo sax yow ngeen foog ni gars dañuy xeex benn kese njaboot ka la ñuy wëri Pape Sané le journaliste wax na ko buñ ko jàppee njabootam lañ topp ji njabootam newuñu sax fii France Europe ñu leen di embuscade njabootam wax na ko démb dégg ngeen ko démb dégg ngeen ko mun leen man lu ma ci metti du man sama njaboot sax lañ ko topp ay xale yu ndaw yu laalewul ci dara lañ topp ay nit yu qui n'ont absolument rien à voir benn nit munoo cee jot nga dem topp njaboot ga topp frère ya topp sœur ya wër kër ga di dafa wëndaaloog ak oto di taxawaalu ci bunt bi di menacer kenn xamul bu waa kër gi génnee gis la nga taxaw sa oto nit yi fees fa dell ngay wër kër gi di xool mais pourquoi nekkuma foofu je ne suis pas là-bas je suis kii wax fii la nekk Canada boo leen mënee ñëw leen Canada kan leen di wëri nekkul Kaolack te ñu fa nekk amul kenn koo leen mën a wax ku mu mën a changé loo lu dul tooñ ay ñu deful dara defu leen ko lu ñu tooñ ñaate ñi ngeen di tooñ defuñu leen dara xamuñu sax nu mbir ya demee da ngeen di ñëw gaari seen oto di xool di nappaatee pour ne taxawal ba mu neex leen dem seen yoon pourquoi ki ngeen di seeta ngi nii wax ak yéen bu dee ay góor ngeen ñeme ngeen ñëw leen maa ngi Montréal Canada xam ngeen fu ma ne bàyyi leen ñi ngeen di jéem a maltraité que napp ka kii faalewuñu leen en tout cas le peuple sénégalais doit être très très très très très résistant du moins le peuple sénégalais dañoo war a taxaw dañoo war a waajal seen bopp dañoo war a waajal seen bopp bañ a jàpp affaire bi caaxaan bañ a jàpp ay affaire bi foo bañ a foog ni Macky Sall daf ñuy bàyyee mbir yi bañ a foog ni ñu koy may bu for yombee fëgg ja sëgg jafe bu for yombee sëgg jafe ñu waajal suñu bopp yokk fulla yokk fayda fas suñu kanam fas suñu suñu fulla xam ne ñun du ñuy ay xale yuy foo régime la ñuy bëgg a daane te régime kenn du ko daanelee ci naxasaay naxasa xandang pour mu leer salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. peace and